moom madame la quoi waaw brasé la Youssou Dieng la ñuy xaar mu ñëw waaw dañuy jàppale yow yaay faal boo ñëwee dañuy sàcc ca kaw. li tax ñuy sàcc eh mayoo ñu dara joxoo ñu ñoo fay mënoo ñoo luyee. ñoo jënd waaye sa mbaax moo ñu ñor sa mbaax a ñu ñor sa kasa ñoo ñu ñu taxaw fii woote Dubaay neen kay leen fan ngeen jëm ci kasa yaay Fall eh yaay Fall damaa bëgg nga dugg ba ci kaw seen jël micro bi ànd ak yow wàcc ak sa

jàpp jàpp yaay Fall bu la neexoon nga dugg si xool ma romb ma waaye junni yu bër yii yii lu ko waral eh bëgguma sa jikko de rek la de eh eh jàpp eh. waaw mais mbaax doonante la doom gis nañu ndeysaan Jibril euh, nee naa nee naa nee naa ku bëgg seen mbaax ndeysaan ndax seen ñi la mel daa yaatu ndeysaan barke Sëñ Saliou milliardaire la boo xamante ne boo gisee doo ko ko xobee ndeysaan waaw ah, kon donc euh, seet nañ ko ma ne ko yaay Fall yaay yaru Dakar foo toll da ngay Dakar waaw jàppso jàppso may ma boobu jàppso jàppso yàlla am jàmm <laughs> musique tàkkul nga bëgg a fecc lii maa jàmm la <laughs> ah jaaxle may Ah, ah doomu géwél ngay ba ngay dégg yow. non yaay dañ koy ñaanal jàmm ak salaam. barke Serigne Saliou Mbacké. xam nga dama gurus ndax dafa yaru. Eh. waaw xam nga euh, xam nga gu ne am nga géer. te ndeysaan ah, ku ko bëgg rek Serafal tax nga bëgg ko. ak xolam bu rafet Serafal ndax tey jii c'est la première fois nag ñu gisante. mais kii suma xarit la na wax ay waxam motax tay ji jii ba may dugg ci ñew du jël walé dañu dajé rek mu japp sama loxo ci ma ne ma balaa ngaa yëg kaay nga gisante ak yaay fall ba paré mm-hmm. ah kon tay mbékté la ak contentement ma jàkkaarloog sama yaay fall bu ñaawul bi mm-hmm. nga xamné ndaysan ndeysaan ku ko bëgg rek xolam bu rafet la. ak mm-hmm. Cheikh Ibra waaw relation yoy relation yoy nga ma laaj noonu maanaam mooy xol bu rafet te nit boo koy bëgg da koy bëgg ak mbax waaw te nit mbax rek nga ko mëna a ndax bo baxé rek bax ëmëna lépp. waaw lool dong la waaw effectivement. wax am na solo. ci Yaay Fall Yaay Fall nga demee tuuti rek ñu ngi ñëw ci yow jàpp tëj na jamono yi nga xamante ne mooy showbiz bi ak kenn du ne ndax jàpp téye na ko wala téye sa transaction wala sa transhumance la ñu ma wax jàpp suba teel jàpp faramaare comment ça a été boo ko dundee ak coow yi. coow la noonu duñ ko eh, dara rek jàmm ak salaam rek xamuñu moom ci jàmm rek lañ dëkk <laughs> waaw ñun ay taalibe Cheikh Ibrahima lañ ci jàmm rek lañ dëkk waaw tey ba ma ni ma jàkkaarloog yaay Fall sama xol baa ngi seet dugg yi ci jàmm rek moo tax gisoo jàmm laa taxawee nii waaw loolu dong la mun roof na may jënd nii ba ma doyal sëkk nii non non <laughs> loolu du lu ñuy wax fii <laughs> waaw loolu dong la. waaw merci beaucoup yaay faal temps yaay fa dafa war a joué ji man dama war a yéeg. te daf ma war a teelal nii bala maa dem. léegi nag Sidi Diop yàlla na am jàmm ne yàlla na ñëpp am jàmm loolu dong la. li euh, ah, ah, loolu la Sénégalais yi doon xaar. suma relation ak Wally nag duma ma ko waxagum léegi ndax cat dafa gaaw waaw nañ bàyyi ba ci kanam <laughs> loolu waaw waaw <laughs> ah, <laughs> waaw maa ngi delloo ziar maa ngi si jàmm bu baax a baax. Mhm. Uh, li ko waral mooy tonto Youssou moo ko waral parce dafa jël bisam li may wax boole ma si marraine yi te bu ko neexoon ko def. mu def test bu rafet ñëw ba sama ka seesi ya ma ñëw toog ma seggal ko café Touba mu neex lool mu ne ma café bi kan moo koy defar ma ne ko man la man maay defar café bi mu ne ma pourquoi pas yow doo ko génnee ma ne ko maa ngi koy génnee sax xëy na nag si soog a jot mu ne ma Sorano incha allah da ngay dugal si baas si biir nga jaay barke Serigne Saliou lii la. ni la demee macha allah nga doon koo xam ne da ngay seet waaye askan bi bëgg la. Mhm. tey cofeel boobu noonu di am ci yow lan la. parce que yaay Fall laa woote yaayu ñëpp laa looloo tax xale yi bëgg ma maay seen yaay. sa mm-hmm. waaw Wally Cheikh Fall laa ko bëggee. dégg ku bëgg Cheikh Fall dama lay bëgg. ak koo mënti doon. dégg dafa neex a bëgg ndax moom la fi yàlla teg nag. Ah. ñëpp a man nag ñëpp man. mais yàlla dafay tànn ci nit ñi ci koo xam ne spécial la. Wally spécial la. gisoo xam ah xam nga jàpp moo xam la ko intéressé mu def ko. très hmm? ku nekk li la intéressé ngay def. man yaay Fall la ma xoolee ne yéeg si kaw seen waal sekk dafa ma intéressé lijjantiwu ma waxu ñeneen ñi damaa dem yéeg si. nit ku ci nekk la la intéressé ngay dund kooku moom loolu moom ko intéressé moom la engagé franchement. Euh, waa dégg naa ko nag mais ñi ma ko dégg bariwul nag parce que man moom bu la nit ñi bëggee loo def neex na même bu leen kiiw sa da leen di neex waaw lu ma si jublu mooy Cheikh Rafal jërek sama laxasaay laa dem def ku ko gisee neneen baax naa ku mooy loolu daal comme nu ma koy waxee. non man Mouhamed Niang mooy sama waykat waali Cheikh Rafal laa ko jàppee man Mouhamed Niang mooy sama waykat leer na leer na waaw mais ñoom ñëpp laa man bañu ma kenn man damay wax a affaire ah, mooy que man yaayu ñëpp laa man bañu ma kenn man ñëpp laa bëgg du ma xas kenn du ma wax kenn lu ñaaw ku ñëw bokk nga si man mais ñu njëkk a feeñ rek ngeen gis mais ñëpp yaay fàllan pour yaay fàllan muy jàngkat beeg lu may wax sax waykat beeg musicien beeg yaayu ñëpp laa daal parce que ñëpp mu bëgg yàlla dafa dogal nag année bu nekk ku nekk sa année. année bii nii seetkat yi si réew mi dañ may bàyyee courant bi. Ah, xam nga li ci gem waa gem nu ma ko dundee méttiwul parce que dama am fulla am fayda am caractère gaynde laa kenn yobu ma. sama territoire xale mosu fee jaar te jaar ma defal la bagage maa leen gën a féetee xale. maa leen gën a jongoo maa leen dàq seet waaw. waaw te nag bàyyi rek ma dem na ndax temps bi moo